mais dafa am lu ma wax xam naa ne li ma wax nag ma baaxee leen ko bàyyi leen ko yéen moom ak téléspectateurs yi moom mu waxal ko boppam Modou Mamoun mais Modou délégué. waaw Mass sant sëñ Tuubaa Xaadimu Rasuul waaw naka coono yi waaw mais xaar bañ bañ pare ci daral gi te daa mel ni sëñ bëtee aji de <laughs> ah, waaw looy laajte noonu. waale la ñu wutal ay nag rek pour mu yu yu mu yu mu yóbbu Touba waaw waale la wutal ay nag no waali waali moo jënd xam nga ñun ci ndigal rek la ñuy dox waali moo ñu yónni rek pour ñu wutal ko ay nag waaw mu yóbbu ko ci ku tedd ki waaw xam naa dinañ mën a xool lu tolloot fii trent nag rek ñu génn ko fi yóbbu ko Touba incha allah ngir bis bi waaw waaw ngir lépp ngir bés bi waaw dañuy tànn yi fi gën a mag rek comme genre bii rek non wow ma ko sax waale muri la dañ ko waale xam na xam na li mu war a def mu ngi jëf nañ ko gën a yokk ay ñaan rek suñ tuwaa defaral ko taw feex yéenam ji mu am ci yoon yi mu matala ko loolu kese la ah sas murit bu ne li sa xool ne nga war a sasoo rek <laughs> ay waay ñu ne mais jomaay jomaay nañ ñëw ci fii waaye ñu defaral seeraas ah waaw màggal gi xam nga ñëwagul dina def ay jéego ndax ma ngi joxe ay paas mu ngi dimbali ay nit yu war a dem ah li ci des nag des na màggal gi des na ñu ngi ci lundi mardi mercredi donc euh, fii ak mercredi at ba jeudi màggal gi des na moom ba day joxe paas ba bis bi di joxe ay nag tamit ba bis bi ma ah dañ ko ñaanal yàlla mu yokk rek gisoo nii ñu ngi nii ñëw pour jëndal ko ay nag yoo xam ne moo nu yónni ah enseigne ah, petit waaw kon kay ma ngi ci ah xam nga da délégué ko ko mën a dugaloo ci daral solloo ko équipement bi hmm? jëm ci sëñ Tuubaa rek nga ko mën a sante mu def ko ah donc kon ñu ngi ci sëñ Tuubaa rek moo ñu jaral li hmm? yow xam nga ne boo boo ba ma tuddoon ba guddi yaa ngi dégg nga woo ma ne ma kaay dama ma ca dara ga wut heure bi ak taw bi xam nga du ma dem de waaw sëñ Tuubaa rek ma mën a déplacé loo ci lu jëm ci sëñ Tuubaa ngi ci dañ jéem a waxtaan at gaa yi ñu jaay ñu nag yi ñu dem yóbbu ko Touba buñ ci mënee boole ay laadum sax parce que gis naa fi ay laadum ñu boole ci ñaari laadum yu am solo waaw ginnaaw sëñ bi moom nee na bul naw bul naw gileem ba xeeb ganaar kon dañ ci def lépp rek lu nu am. délégué fanweeri nag yi nga war a jënd xanaa war na mot. ah taw kay. sëñ Touba mun na lépp. xam nga ne kii ah, muy taw ñuy daw naan taw bi. waaw ah. kii waral bis bi Seexul Xaddim juróom ñaari at yu teg ay weer mu nekk Gabon muy taw ci kawam. Ah, mu koy dékku ndax jaam ñi. ñun lu ndaw lii di taw suñ kaw ñu naan dañuy daw di làqatu ci oto pour lan waaye loolu mooy. saxel waaw day tey. tey. da ko yow doo nitu àll de. lii nii bëgguma sax Modou yëg ko. non parce que xam naa hmm. koy bett la ci man. dëgg la dama doon seetal rek eh, suma frère la. ndeysaan. Ah, moom dañoo àndee Serigne Touba. Hmm. te ma xam mbëggeel ku foor gu mu bëgg. Modou yàlla dogal na. mu ma def lu ma métti mhm. lu ma neex rek la may def ndax bés bi sama waajur yi génne àdduna nam ci taxawee muy sama waajur bu góor di sama sœur moom ba ci mhm. moom level bi ñu àndee dafa kawe trop mhm. donc je tenais à te le témoigner yow bi nga xamante ni frère nga damay dégg tul le temps muy wax say wax danga xam ni ku ko sopp laa ku ko jàpp laa ku ko téye laa te ngi ñaan sama diggante ak moom wéy wéy ba ñu jëm nekk ay màggat incha allah. vraiment ci yoonu màggal gi maa ko ci ñaanal jàmm gudd fan ak wér. tawféex bare bare bare lépp lu mu liggéeyal Serigne Touba. Mm. sëñ moom am na pay. Mm. yàgg yàgg dina ko fay. donc vraiment je tenais à te dire que Modou Amar. Mm. maag moom du showbiz. non non non. su ma sañoon sax Modou du génn ci internet. Hmm. di tott kenn wala di waxi lenn. Hmm. mais dafa mas a wax sama yaay ne ko. Hmm. soo génnee wax ci waale midi midi 15 ma génn boobu laa ko noppee tere. te xam ni boobu. dimension ah. ma ko ñaanal jàmm teg buñ ko dugg. di ko ñaanal yoon ji mu jëm yoonu màggal ndax moom bu màggal ñëwee xaw a mel ni ko. Ah, waaw donc yàlla na ko yàlla defal jàmm. Mm-hmm. defal ko mboolum jullit di ñaan Sénégalais yëpp. Mm-hmm. képp ku ci dem di màggal xam ni Tuubaa moom sore tut mm-hmm. waaw ñu nànk rek te xam ni doo daan dañu àgg. jóg nànk daw nànk. waaw man dal nànk dal nànk. dal mën naa ñàkk. dëgg yàlla waaw nañu nànk rek ñu dem màggali. ci jàmm ndax màggal gu ren gi moom dafa nuru. ah màggalu defaru ba faw faw faw faw parce que ku ne xam na ni mu dëgëree don ku ci jiyaat rek ku ci rayante def ci sa alal rek hmm. jàppal ni hmm. ah, sëriñ bi dina ko ful bu soobee hmm. yàlla ma daal maa ngi lay gërëm bu baax a baax di ko contentement jàkkaarloo ak yow tey jërëjëf ci jërëjëf Mar jërëjëf <laughs>